waa ginnaaw bi ñu santee yàlla wax dëgg yàlla ñi ngi xaar njiitu réew mi ak doole di ko xaar également parce que yàlla def na moom biir Tambacounda amna lo loo mom la fa tekki amna lo mom la fa def faaw réserver le meilleur accueil wayé nak amna lo fi comme engagement 2013 lu ci maintenant matna le lu xawa des touti. fait lu ci bëré matna bon bu conseil euh, présidentiel bi territorialisé régionaux yi jël parole wax ak mom. d'abord sant ko ci aussi euh, wax ko ci li nga d'abord le hub euh, logistique ak raay bi aussi euh, université bi nga xamante ne ñu sant ko ci ni ko démarré waaye mu defal ñu hôpital de niveau 3 bah moo tax mu def conseil présidentiel les acteurs territoriaux yëpp yi nga xamante ne ci région bi la ñu nekk ngir ñu mën a wax ku ci nekk sa soxla aussi sant ko ci li mu def tax ñu daje rek àndandoo loolu booloo mooy doole waaye bu loolu mënul amit ñi mën a ànd ànd loolu yëpp ñu sotti ko ci bagaanu chef de l'État jërëjëf